suñu xol lu dul métti parce que aussi affaire dafa dem ba kenn xamul lu muy nduru parce que combat bi ñu ngi ko mënee depuis 2005 mi ngi nekkoon si eeru son excellence maître Abdoulaye Wade mu nekk espace boo xamante ni dañ ko terrassé woon en 2005 2006 donc ñu ñuy ay doomu gox bi juddoo fi am benn structure bu ñu nekk muy ASC Cosaan nekk équipe bu mag aussi au niveau de Pikine amoon fi terrain autant parce que boobu fii àll la woon biñ demee ba ci biir ñu gis ne terrassement bi mu amee après gars yi ñu koy lotissé di ko jaay ñun ñu ci xeex espace bu ñu mun a entraîner muy terrain bi tey non jënduñu ko dañu ko jox parce que jox bi mi ngi jugee ci ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moo defoon benn arrêté ne woon que ne cosaan nañ ko bàyyi mu resté ci terrain bi jusqu'à que ñu koy trouver espace bu gën boobu pour mu mën fa dem depuis boobu ñun ci dynamique boobu lañ nekk nawet bi nag ñëw na donc mu nekk nawet boo xamante ni nawet bu fi gëj am la ndox bi bari trop pratiquement ndox bi versé wu lépp li nga xamante ni mooy ndox yu jóge ci commune bi yëpp fii la versé ñëw ñu nangu aussi parce que ay citoyens sénégalais lañ donc espace bi aire de jeu pour jeunesse bi pour ñu ci mën a entraîner mais tamit bu jafe-jafe amee dañ koy nangu ñu nangu gars yi purgé ndox bi yëpp. waaw stag nekk fii ñu ñu ànd ci quoi mais bi jeexee. dañu am club national bu war a démarrer ses activités au mois de décembre à notre grande surprise à notre grande surprise ñu xëy gis ne gars yi ñu ngi fi indi suuf di ko fi verser te dafa am arrêté bu préfet joxe woon que ne terrain bi bu ci kenn def dara bu ci kenn sotti dara bu ci kenn jëm dara ñun dañu ñëw fekk commune bi di ko fi verser parce que dafa amoon ay bonne volonté yu nekk ci quartier bi nekk ay supporters donc amoon yéene defar terrain bi sollicité woon benn autorité donc mu mayoon ñu quelques camions camions yi nekk nekkoon ci vingt camions ñu ne leen doy na lii war nañ ko moon a def ci terrain bi ci kaw loolu ñu gis ne suuf si mi ngi yokk un jour ñu gis benn camion romb ñu ñu topp ko bi ñu ko toppee ñëw fekk ko muy décharger ñu laaj ko kan moo la décharger loo suuf fi mu ne ñoom mairie bi moo leen yónni ñu interpeller kenn ku nekk ci mairie bi nekk au sein aussi de l'ASC Cosaan mu ne effectivement moom moo wax gars yi nañ déverser suuf si fii parce que dañ ko yóbbu ci école bi tey ñu xëy ñëw gis camions yi di verser ñu ne leen dañuy arrêté parce que terrain bi dañ ko bëgg a mettre praticable parce que équipe bi day démarrer ay entraînement parce que dañu war a jouer au mois de décembre ci loolu bi ñu arrêté ñaari camions yi ñu dellu même pas dix minutes ñu gis que ne police ñëw na commandant ñëw daal ñuy expliquer ne nañ arrêté parce que dafa jot ci ndigal commissaire bu préfet woo na ko terrain bi ñi ngi am lu ñu fay def na nga dem nga arrêté ko léegi nag loolu nekk benn équation ci ñun noonu li ñu fas yéene def mooy terrain bi ñun délibéré woon nañu que ne comme quoi que ne ñun ñoo fi war nekk ba keroog ñu ñu wutal fu gën fii ñun ci taxawaay boobu lañ am ba léegi terrain bi pare wuñu pour génn fi non loolu moom wax dëgg fa yàlla moom la concerné parce que déjà boo xoolee ci biir ay jalgati déjà commencé na am parce que buñ nee buñ nee jalgati mooy tey jii ñu ne préfet ne terrain bi bu ci kenn def dara ñu xëy waa Eiffage nañu waa mairie bi ñoo leen délibéré ñu bëgg ko ñu bañ ko parce que tey terrain bi li ci si fi nekk bari parce que ay borom kër nee nañ presque vingt sept maison moo fi war a génn nee nañ cent personne moom cent personne ku ci nekk nee am nga fi terrain. waaw bu Souleymane Ndéné Ndiaye joxewul document boobu mi ngi fi te aussi mi ngi préfecture kon préfet moom loolu ump ko kon tey bu ñu xëyee préfet une semaine muy dégg que ne terrain bi ñu ngi fay verser suuf waxu ci ba tey ñun ASC bi ñu ñëw pour defar suñu terrain mu wax ci non y a problème. non doo comprendre en fait doo comprendre. non ñun dañu jàpp ne loolu néewal ñu doole lañ bëgg non si complicité lañ ko mën a wax parce que tey jii moom bu yégee ne suuf bi ñu ngi koy versé ci terrain bi te moom mu nekk la première autorité bu état teg fii mu représenté ministre de l' intérieur war a xam li daw ci territoire Pikine Ouest bi yëpp ak fi mu nekk ak fi terrain bi nekk ça fait même pas 500 mètres kon donc ñun bi ñu ñëwee commencé terrasser rek automatiquement moom yëg na ko. ba tax mu woote pour ñu arrêté ko kon gars bi ñuy ñëw di terrasser di soti sotti suuf si du ne yëgu ko loolu mënu nekk quoi franchement di ko lancer un appel cher président jeunesse su Pikine dañu dañu dañu amatul espace de jeu amatul billaay walaay amatul tribunal route de Niayes ba technopole route nationale Wat Gaynde ñaari espace moo fi am muy bii ak bi nekk ci ginnaaw arène nationale bi te mine de rien Pikine war na am maximum trente ASC ñun commune bi ñu nekk nii rek neuf ASC la benn ASC moo ci am moo ci waaw moo ci am tere te moomagu ko sax ndax da xeex mooy bii tey kon loolu moom war nañu war nañu bàyyi xel te l'avenir de demain nous appartient. te boo gisee que ne pikin daaw ñu toog amul joueur équipe nationale. li ñu ko commencé xañ mooy ñàkk ay aire de jeu booy yi tumuraanke na ay terrain de football amatu fi te bu njëkk da fi bari woon parce que fii àll la woon cosaan amoon fi terrain gazelle am fi terrain gunay zinc am fi terrain ainsi de suite équipe bi fi nekkoon yëpp am fi terrain ñu doon produire ay jeunes talents mais instant bii loolu la ñu rafle surtout ñun ñi nga xam ne ñun yàlla daf ñu natoo ñu bëgg sport di ko dund.